sama combat bi léegi mu ñëw di li nga mën a envoyé kayitam. non xaaral sax ma am na ma defal yow comme ça man léegi mën a continuer si dans sama marché. waaw ma la envoyé léegi léegi ci sa compte Orange Money international ak Tap li neexul képp ku may envoyé ci xaalis ku nekk ci diaspora bi nang ma ko envoyé ci Tap Tap Send ma jot ko léegi doo rang fii ma toog laa toog mu ñëw waaye li neexul Tap Tap Send lii neexul Tap Tap. man big naa. naa wañ sant yàlla julli si yonent sant suñu ñaar waajur dañuy sant ñu fi teew ñëpp waaw di nuyu média bi di nuyu presse bi xam nga di nuyu kilifa diina yi ak kilifa aada yi xam nga di ñaanal Sénégal ne yàlla na fi jàmm yàgg xam nga di ñaanal ñu tëdd si hôpital yi ñu tëdd ci feebar yi xam nga ñu nekk ci 100 bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm xam nga di ñaanal ñëpp daal waaw ñu fi des tam di ñaanal jàmm ak gudd fan ak wér yaram yi caabi fee de ginnaaw aussi tam ñu ngi leen di ñaanal di leen nuyu bu baax baax di leen dalal jàmm. waaw woote bi li ko waral nag lenn kese la mooy tey boo xoolee lem ci réew mi muy mbas mi ah, moo waral moo gën a waral ñu woote tey fii nii parce que tey ñun ay ay espoir lañ nekk si làmb di yëngu ci làmb tey amuñu lu làmb xam nga tey espoir yu bari nag arrêté na du làmb kese activités yu bari mën naa ne arrêté na dara waru ko lu feebar bi mais amaana peut-être tey jii nii làmb da ca gën a méttile ñu nekk ay jeunes nekk ay xale yu ndaw xam nga amuñu lu làmb aussi tamit amoon ay combat di ko préparé xam nga préparé ko mën naa ne at daaw ba ren feebar bi xam nga ñu dem ba mu des ay ay ay ay ay semaines ñu arrêté waat ko mu nekk loo xamante ne tamit aussi xam nga métti nañu torop ñun jeune bi ñun jeunesse bi métti nañ ñun waa axlu làmb amuñu nag fenn fu ñu koy jooytoo fu dul ci presse bi ak média bi moo waral ñu woote nii. pour wax li ñu metti daal waaw ginnaaw ginnaaw bi nga waxee euh, gis nga amoon combat mhm. mooy li nga wax léegi-léegi ni mu duré presque un an et quelque mhm. léegi yow promoteur bi lan la la dénkaat da la combat bi da ngay avancé wala da ngeen di toog waxtaan kat si table waaw loolu nag ba tey waxtaan a gunge parce que loolu noonu tamit du lu ñu war a désiré ñun ñun dañuy maal placé pour wax ci loolu noonu parce que tey jii nii ñun dañu am ay kilifa te amaana peut-être ñoom ñoom xëy na ñoom ñooy décider ci côté boobu noonu ñun li ñu war rek si dañuy nekk muy suñu entraînement suñu préparation xam nga nekk si lu ñu war a nekk parce que ba léegi si contrat lañ nekk ñu bu baax wér. waaw. waaw loolu moom métti na parce que tamit boo xoolee tey jii nii mën naa ni méttit méttit la rek tey jii mën naa ne xëy na peut-être ñooñu ku ci nekk ak sa méttit fi la toll mais man tey jàpp naa ne tey jii nii ñun amul kenn ku ñu gën a méttile ndax tey jii nii ñun suñu combat at lañ ko préparé ñu waroon xëy bëre su ñu waroon xëy bëre dimanche ñu annulé ko ak ñun jàpp naa ne ñoo yem rek. c'est pas grave. ñu jàpp naa ne ñoo yem. parce que tey ñun boo xoolee tey par exemple at lañ préparé suñu combat te mbas mi moo taxoon tamit ñu ñu ñu prolongé bu euh, un an yi kon bu ñëwee ba fii tam mu des ay 15 jours ñu annulé ko tamit jàpp naa ne ñun kenn gënuñu métti lee parce que tamit li ñu ci def tamit ñun ñoo ko xam. kon damay jàpp ni ñooñu c'est fi la làmb tool ak fi suñu làmb tool rek na la quoi ñun dañuy jàpp ni ku ñu gënul méttale moment bi ñu toll gënoo ñu méttale yooyu noonu la demee tey liñ ci fere ñun buñ toogoon fii di ko wax tamit amaana buñ fi jógee parce que tamit liñ ci fere bari na bari boo xamante ne tey jii nii mënuñu toog sax di ko évaluer parce que ku xam na ne làmb dafa metti dañ lay fay luñ lépp luñ la fay di nga ci def lu ko ëpp rawatina combat boo xamante ne at la durée mu metti trop liñ ci def moom mënuñu toog fii di ko wax metti na nag metti na trop parce que tamit jël nañ am nañ amee nañ si ay bor yoo xamante ne fi mu ne xam nga amaana yaakaaroon nañ la 15 bi lañ yaakaaroon mu jàll sax pour ñu mën ko fay wala dara loolu bokk na aussi tamit li ñu gën a empêché kon day dañuy jàpp ni tamit euh, li am nii day gën a métti parce que boo xoolee tey ñu ni boo xam ne def na at dem ba des ay 15 jours nga amee ci ay bor yoo xamante ni métti na méttiwaay boo xamante ni yaakaaru lu làmb ji jeex nga nga nga kii ko ñu ñu ñu annulé waat làmb ji puusaat ko tamit jàpp naa ne tamit day gën a métti yooyu noonu la demee moo tax métti na daal fu metti yem daal mën naa ne foofu la tàmbalee li waaw CNG bi fi jóge ak CNG bi fi nekkoon différence bi bëri na différence bi moom daanaka ñëpp xam nañ ko parce que boo xoolee tey jii nii xam nga pour man changement bi li taxoon ñu changé CNG bi teg fi beneen CNG gisaguñ ko quoi gisaguñ ko ndax amaana tey jii Alioune Sarr sax bi fi nekk amaana ni ñu gisee woon suñu bopp par rapport ak bi fi jógee sa waxtaan wax dëgg ca la quoi kon changement bi ñu def tamit pour man servirul dara quoi changement bi c'est amul dara lu mu servir moment bii nii. xëy na peut ci kanam mais instant bii nii moom changement bi ñu def ci CNG bi moom servirul làmb dara dara dara dara. léegi bëri na parce que boo xoolee sax danga ngay xool différence bu am na ba ci combat bi passé bi nga roon wax ñu waroon bëri dimanche ci ëllëg si waaw ñu waroon bëri le 25 boo xoolee loolu mën naa ne dëgg la métti na mais erreur CNG la aussi tamit parce que promoteur mënul tëggal làmbam tamit xam nga. ba def lépp lu muy def fay ay frais d'organisation fay ay sécurité fay lépp joxe ay reliquats am ak lépp xam nga ba ci jour bi xamul sax ndax làmb dañ koy rapporté loolu pour man fautu CNG la quoi. waaw ministre des sports ministre des sports am na ci part de responsabilité parce que moom moo yor sport bi kon sport bu taxawee rek ci moom la bu doxee ci moom la yee am na ci part de responsabilité parce que tamit ñun mooy li ma wax sànq rek ñun dañu war a jàppale parce que gars yi dañoo sonn. parce que tey boo xoolee ministre des sports moom lamb ji sport bi moo ci teewal président Macky Sall kon tey jii nii lépp loo xamante ne tey jii ñoom désiré nañu ko ci nguur gi rek pour pour ñun bu ñu amee dara lu ñuy wax wala lu ñuy joote si moom lañ koy jootoo si moom lañ ko war a waxee te moom amaana jàpp naa ne xam na li ñu métti yëpp comme kenn gënu koo xam xam ne lépp ñu mu demee waaw kon tamit benn sant tamit moom beneen sant dañ koy jox toor ci benn côté waaw parce que lépp nii tamit dafa métti quoi waaw ñàkk jox làmb cër mi ngi basé wu ci ñi CNG bi CNG bi nga xamante ne tey jii nii ñoom lañ fi teg mais ba tey amul dara loo xamante ne tey jii nii ñoom service nañ ko làmb du dara CNG bi ñu fi teg amul dara loo xamante ne service nañ ko làmb loo xamante ne di nga mën a xam ne ñii kat ñu ngi jàppale làmb wala làmb moo leen ñor wala dara xam nga làmb daal mën naa ne tey jii instant bi féetal na foo xamante ni xam nga metti na quoi waaw metti na trop ñu ngi promoteur bi déggante nañ déggante nañ mais waxuñu sax lu si kii bi dañoo déggante rek ku ne xam ne maanaam mu xamal ñu li am. foofu lañ ci toll déggante nañ mu xamal ñu li am décision bi moom la gars yi jël si làmb xam nga bi mu ko waxee tamit ñun suñu wax ak promoteur mënul sori parce que ñun ay ndaw lañ dañoo joxe am ñoo xam ne ñoom ñoo yor wàllu woowu amaana lenn lañ ci am mooy woo nañ ñu xamal nañu carrément làmb ji nii la demee reporté loolu lañ ci am amaana nag leneen loo xam beneen décision boo xamante ne tamit gars ñoo si war a wax loolu dafa am ñoo xam te ne ñoom ñoo si war a wax ak promoteurs yi xëy na ñoom ñu déggante seeg promoteur yi wala ñu wax seeg ñoom mais ñun promoteur yi foofu la ñu mm-hmm. loolu dëgg la parce que mbëri ndaw yi moom chaque jour rek làmb ñoom ñoo siy gën a dee. mbëri ndey moom làmb bu yàqoo wala mu métti ñoom ñoo si gën a dee parce que tamit boo xoolee tey jii nii VIP yi xam comme li ñu wax rek ñoom peut être li ñu am am nañ ko ba pare coono bi ñu dalal mbëri ndaw ak li ñu siy daj dëgg ñoom duñ ko daj loolu moo tax benn sant tamit xam nga ñoom war nañu bàyyi xel loolu ko war nañuy bàyyi xel aussi tamit ñoom ay mbëri ndaw lañu woon parce que tamit pour man lii nii ñoom ñoo ko waroon njëkkee te pour man du nii sax lañ ko waroon wootee Gris Bordeaux moom mooy président en activité ñu koy nuyu au passage pour man li mu waroon def mooy wootee mbër yëpp ñu dajaloo arène national pour man du woon loo xamante ni moom da koy def sax moom kese moom dafa waroon woo képp koo xamante ni mbër nga da ngay takk ngemb mu woote ñu dajaloo arène national mais yaay ñëw ku ci nekk nga mu jiitu wax li nga xamante ni moo naqari ñëpp xam nga mu doon benn wax boobaa yii nii yëpp du am keneen du woote conférence de presse keneen du ay point de presse kenn du fi waxaat di gën di wax dara parce que non woote bi Gris Bordeaux wax gis nañ ci mënoon na mënoon na gën a organiser côté bi ñu ci gisee suñu bopp mooy wax na kaasal kaas na ci làmb kaasal na mbëri côté boobu dañ ciy d'accord dañ ciy ànd parce que ñun la kaasal ñun ñëpp la kaasal surtout ñun mbëri ndaw yi nga xam te ne amaguñ ci làmb dara kon loolu noonu tey jii dañ ciy gis suñu bopp ñun ñëpp mais dañ ne tey jii mënoon na gën a organiser ni mu doon gën a organiser mooy tey ñu wootee woo mbër yëpp tey jii nii képp kuy mbër ñu woo la arène nationale joxante fa rendez-vous ñu dajoo arène nationale woo presse bi ñu ñëw ñu jàkkaarloog presse bi wax fa li ñu naqari boobaa nga xamante ni du doon kenn nit du doon ñaari nit képp kuy mbër laa la dañ la woo di nga fa teg sa tànk di nga ñëw te boo ñëwee booba moom mi nga xamante ne mooy président de lutteurs en activité bu génnee wax rek dina waxee ci kàddu mbër yëpp boobaa benn wax lay doon te foog naa ni wax boobu noonu moo doon ëpp solo moo doon ëpp sens moo doon ëpp doole ndax boobaa bu bu ko defoon tey jii nii wala bu ko defee amaana tey jii nii liñ bëgg mën nañ koo am ci nu mu gën a gaawee waaw am état wu Sénégal bëgguñu làmb moom gars yi ko dee wax bu koy wax moom guddi yuñ toll moom dañ ciy ànd ak yow que boo xoolee tey jii nii affaire yi nii mu déroulé nii boo xoolee sport làmb ji rek lañ ci njëkk a bloqué boo xoolee daaw bi mbas bu njëkkee am làmb ji dañ ko bloqué déggoo benn mbër bu aalu déggoo kenn ko andi problème dem nañ ba dernière minute ñu dédommagé artistes yëpp ku ci nekk ñu jox lay ndàmbaay am lu ñu jox te gënuñu ko yeeyoo mbër yi que mbër yi ay porteurs de voix tey mbër bu jóg tey ji ay millions de personnes ñoo lay topp jeunesse bi ñëpp lay topp xam nga am si yow yaakaar nga am pour wax leen ñu def ñu def ñu bàyyi ñu bàyyi kon tey ji ñu mel noonu tey ji nii état daf leen war a dooleel mais nekkul ne rek tey ji nii ay mbër lañ rek xam nga dañu war a seetaan tamit dafa xaw a métti dafa xaw a ñaaw pour man quoi parce que tamit boo xoolee cër bi mbër yi am néew na artistes yu am néew na stars yu ko am parce que tey mbër bu romboon fii nii tey jii xam nga fii day fees dell rapport tey benn joueur wala dara kon gars yi ni ñuy bàyyi yooyu noonu xel quoi am na lu ñu mën ci jeunesse bi li ñu mën ci jeunesse bi nag nañu nangul loolu noonu xam ne maanaam ñii am na lu ñu mën ci jeunesse bi ñu dooleel ñu jàppale ñu ñun nag amuñu lu dul làmb amuñu benn métier bu dul làmb làmb lañ am si lañ yaakaar kon si li nga xamante ni si lañ nekk parce que dafa métti xam nga nga nekk ndaw bàyyi sa lépp ndax làmb di préparer sa combat ba mu des ay 15 jours perte si xaaj bu bëree bëree bëri xam nga ñu rapporté ko ci loo xamante ni xam nga doo comprend parce que loo xam ne benn mois moo ci desoon pour man mënoon nañu ko may boo xoolee combat des yëpp ci mois de août bi mënoon nañu may ba mois bi jàll xam nga ñu soog a après décision bu ñuy jël sax ñu jël ko parce que boo xoolee mbari dañuy sensibiliser feebar bi même ne daaw mbëri def nañ ay ay aide génnee seen xaalis jàppale si état bi xam nga yooyu foog gars yi di ko wax quoi mbëri tooguñu rek croiser les bara génne nañ seen ay moyenu bopp mu bari mu néew ñu jàppale ko état pour feebar bi xam nga kon ñooñu noonu tey jii war nañ xam ne ñii dañoo bokk ci réew mi am na yoo xamante ne tey jii nii dafa dafa metti quoi pour man dafa métti état bi nag lañ koy lancer message di ko jooytu parce que tamit lépp lu ñu métti instant bii nii mën nañu état moo ñu ko teg keneen te ñu ko jooytu état bi ñun nag jàmm la ñuy woote ci réew mi parce que ay doomu réew lañ ay citoyen lañ bi jàmm ji ñuy woote nag dañuy dañuy dañuy sàkku ndimbal rek état bi dimbali ñu xam ne ay ndaw lañ ay jeunes lañ ni ñu mën a jàppale nag mooy comme li am am na ba pare feebar bi moo fi nekk mbas bi moo fi nekk activité yu bëri la tënk instant yi nii dañ koy nangu mais lim ñu mën a jàppale tey ni mu jàppale yeneen artistes yi jàppale ko yeneen yeneen mu jàppale ko waa làmb waaw gis nga loolu bokk na si lu gën a bokk na si lu gën a métti li gën a métti ñuy woote di kaas boo xoolee boîte yi day fees dell rassemblement yi foofu la ëppee xam nga kon tey yooyu yëpp boo ko nangoo tey jii ba pare xam nga ne làmb du am xam day am lu muy nduru quoi xëy na day am lu muy nduru moo tax benn côté tamit ci CNG bi côté boobu dañ leen ciy balaame parce que ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiitu ñoom ñooy CNG bi waroon nañ kaas ci loolu war nañ taxaw ci loolu mais gisuñu seen taxawaay ci côté boobu noonu léegi nag comme gisuñu seen taxawaay ci côté boobu ñun ñi nga xamante ne nag ñun ñooy acteurs yi ñun ñoo koy kaas ñun ñoo koy ñun ñooy wax li nga xamante ni moo ñu metti ñu ko mën a kaase nag mooy nii rek wax ci média yi ñu gars yi dégguñu xam ni carrément am nañ ñu naqare te instant bi état bi nañu jàppale li ñuy jàppale nag mooy ñu woo promoteurs yi woo promoteurs yi nga xamante ne ñoo tëgg làmb yi ñu jàppale leen dédommagé am lu leen jox promoteur yi gis mbëri am lu teg seen loxo pour ñu mën a préparer waat seen combat parce que lii tam dafa metti mënoo jël combat xam nga presque ay millions lépp ay xaalis jàmbur lu ne nga jël ko def ko ci ba pare xam nga mu demaat ba des ay 15 jours ñu reporté waat combat bi combat boo xamante ne tey jii nii fi mu ne da leen leer buñ ci yokkaatoon benn un mois ci ci ci kanam rek wallahi azim nga bëgg a ngay dem ba dootoo am koo leb xam nga loolu dafa metti waaw ñun waxuñu ñun budul ñun damaa jëlelu ñun lu ñu ci def rek mais boo xoolee yenn gars yi nga xam ne dañ lay bëgg te yàlla tax ak yenn supporters rek li ñu ciy financé ak li ñu ciy def rek yow boo ko doon calculer sax yow da nga naan sawaay mooy loolu noonu doo xam nu mu toll xam nga te ñooñu dara warlu ko ñurul ñi nga xam ne seen mbër lañ am mooy li moo sànq rek ñun ay porteur de voix lañ am nañ cër ci jeunesse bi cër boobu noonu ci am moo tax waral tey jii ñun lu mu métti métti métti métti métti ba ci sama voyage bi pass yi ma ñëwee gars yi ñoo dajale seen ay junni ñooy dajale seen ay 1000 francs ñooy dajale seen ay 2000 bés bu yàlla sàkk dañuy jógee entraînement ñu ko 5000 jolo pour nga reer ci wala pour nga lekk ci xam nga te dañuy bàyyi seen bopp di la ko defal loolu ñu la koy defal xaj na seen xam ne ñii am pour def lu ñaaw wala def ko su noonu boo leen ne xee toog kon ñu mel noonu tey jii nii ci réew état bi pour man daf leen war a jàppale war nañ taxaw bu baax a baax baax a baax baax surtout période bii ñu toll nga xam ne ne mbas mi dafa laal lu bëree baree baree bëri dëkk bi metti na dëkk bi dëgër na xam nga kon am na yoo xamante ne suñ ko defee pour man fit fitna lay jur quoi ci jeunesse bi parce que jeunesse bi dem nañ ba sonn te sonn nañ sonn boo xamante ne saa bu ñu fippoo du ñu neex a téye wax naa ko keroog waaye bu ñu fippoo du ñu neex a téye te ñun jàmm lañ bëgg ci réew mi balaa yooyu di am na état na nañu gëstu jàppale promoteurs yi woo promoteurs yi si nu mu gën a gaawee ku ci nekk mu xool nu muy teg sa loxo promoteur yi xoolaat mbëri ku ci nekk nu muy lay dolilee nga mën a préparer sa combat ñu jàppal ñu ay date si nu mu gën a gaaw ñu bëri parce que làmb la ñu am amuñu leneen lu dul làmb loolu moom loolu loolu loolu noonu loolu noonu kese mooy suñu ñax su ñun loolu la ñuy jooy parce que dañu xool depuis daaw ba léegi dañu analyser que ni ñi ngi jàppale côté bu ne volet bu ne ñu ngi koy jàppale mais làmb ji ba léegi état bi yëkkatuwul ne benn fond la lii carrément la lii ñu ngi ko jàppalee képp koo xam ne yaa ngi bokk ci ak benn deuxième bi mooy yéen mbëri est-ce que seen biir déggoo ngeen parce que association activité ne nga Gris Bordeaux mooy mooy président bi muy génn yaakaar naa bu ne waxtaan naa yéen waxtaan la benn mbëru mag benn ah. mbëru bu ndaw mooy li nga hmm. ah. ngeen toog ngeen en tant que mbëri ndaw yi ngeen dajaloo waxtaan seen biir woo Gris Bordeaux taj i dëgg xam ne yéen lii ma wax moom li ngeen gis la ñëpp gis boo gisee état bi mu wéree làmb moom ngeen gis moom la ñëpp gis parce que boo xoolee ak làmb yi ni muy déroulé nii tamit loolu ku ñu ko wax ku nekk da ngay nangu loolu noonu da xam ne maanaam état bi instant bi ni muy doxee nii day rey làmb mais defarul làmb xam nga mais tey loolu ñun loolu noonu loolu noonu mooy li ñu metti nag ñun loolu la ñuy kaas parce tey loolu la kese la ñuy kaas kaas ñu leen lul loolu parce que làmb la ñu am mooy li ma la sànq tey rey nga làmb mooy maanaam rey nga jeunesse bi parce que boo xoolee amul benn sport boo xamante ne tey jii nii li làmb di def dina ko def ci Sénégal fii làmb kese mooy am stade yi fees dell xam nga jaaykat yi gis seen bopp ñëpp gis seen bopp du football bi du du du eh, beneen sport du handball bi du basket bi du dara làmb kese moo fi am ay stade yi fees dell dell dell ba ci biti kon tey boo reyee làmb mooy rey nga jeunesse bi te ñun tamit ñun ñun ñun ñun ñooy jeunesse bi rek te si dëkk bi lañ dëkk tey yii nii te ñun jàmm la ñuy ñaan si dëkk bi kon li ñu ñaan mooy état ngir yàlla war a suli mu jàppale ñu si côté boobu noonu bàyyi xel bu baax a baax a baax li nga xamante ni moom la ñuy wax ndax tey na fu muy àgg day dem ba nga xamante ni c'est trop tard boobaa tey yii nii li amoon yi passé ñaanatuñ ko yàlla coow yoo xamante ne xam nga ay nit ñoo si ñàkk seen ay bakkan xam nga ay doomu aadama yoo xamante ne ñoo si ñàkk seen ay bakkan loolu ñaanuñu ko yàlla sul am Sénégal xam nga kon état bi ñoom bu ñu bàyyee xel loolu noonu rek war nañ mën gën a delluwaat ginnaaw tuuti jàppalewaat làmb xam ne làmb bu ñu fippoo tey yii nii wallahi azim lu lu raw loolu mooy amaat lu raw loolu mooy amaat parce que tamit boo xoolee mbëri li topp seen ginnaaw dafa bari te tey jii nii bu mbëri jógoon laa la wax ne dañuy marché wala dara supporter bu ñu si toppee laa la amul benn benn benn benn benn sécurité bu leen mën a téye amul sécurité bu leen mën a téye ay dee mooy xala bari ci dëkk bi rek xam nga ñuy gars yi jël ay lu jàmbur gars yi di si gën a sonn loolu nag balaa ñu si agsi état bi na jàppale làmb ji na jàppale làmb moo gën quoi parce que bu jàppalee làmb jàppalewul làmb bopp seen bopp lañ jàppale parce que jàmm réew mi mooy seen jàmm ñoom mooy suñu jàmm ñu ñëpp te tey amaana tey jii nii pour jàmm réew mi am tey jii nii mooy ñu jàppale làmb parce que tey jii làmb li ci nekk dëgg dëgg dëgg bu ñu fipoo wàcc si bi wallahi azim mënuñu leen téye te boobaa day gën a bàyyi xel loolu noonu même bu ñu bañee làmb tamit nañ nañ bu ñu même bu fekkee bëgguñu làmb tamit nañ xool ci jeunesse bi xam ne jeunesse bi bëgg nañ làmb te tey jeunesse bi tey jii nii làmb moo leen gën a lu ñu am te tey jii nii bu ñu leen ko xañee ba ñu wàcc ci terrain bi dëkk bi day gën a tàkk nañ bàyyi xel loolu lool loolu rek mooy la am solo waaw mais bu ñu xool ci làmb ji waaw li may tontu ci loolu noonu wax naa ko presque sànq mooy lutteur en activité ak ñun presque déggoo amu fa quoi xëy na peut ñoom nag ñooy suñu ay kilifa ñoom seen ay kàddu moo ëpp solo sax suñu ay kàddu mais lépp solo bu ëpp solo mooy tey ñoom waroon nañ mën a woote bu fekkente ne tey jii li ñuy wax dëgg la war nañ mën a woote tey jii nii képp kuy bër ñu joxante dig daje arène national ñu daje fa nekkul koo xamante ne da ngay woote si conférence de presse wala dara non non ñoom ñi nga xam ñooy lutteur en activité tey benn giriwél moom mooy président bi su jëloon téléphone wala vocal kese su ko yóndee woon laa la wax ci groupe whatsapp yi képp kuy mbër bés sàngam dañ la soxla arène nationale boobaa benn mbër bu ndaw du des ñëpp si gis seen bopp mbër yu ndaw yeeg ñu mag ñeeg ñëpp ñu ñëw arène nationale ku ci nekk nag boobaa bu ñu ñëwee moom mu yor kàddu gi ci kàddu mbër yëpp mën na ci wax moom kese booba benn wax mooy am dootul soxla keneen di génnaat fenn naan ay da wax wala da ngay wax parce que lépp lu ñu war a wax tamit wax nañ ko si jour boobu noonu ba pare non loolu weesoogul loolu weesoogul loolu weesoogul laa la loolu weesoogul te tey loolu ñu ngi ciy lancé message tam Gris Bordeaux bu ñu soñoon mu doxalee ko noonu mu mu woote mu woote arène national mbër yëpp nga xam ne arène nationale bi nga xam na arène ñun mu woote fa jàpp jour bu ko neex mu woote fa mbër yëpp mbër yëpp dajaloo ñu dem foofu noonu parce que tamit xalaat yëpp ma ñun ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg mais amaana xalaat yi wuute na ak idée yi xëy na peut-être ñoo bëgg mais xalaat yi tamit mën na wuute ku ci nekk tey jii mën nga am loo ko moom moom mi nga am mooy suñu ku ci nekk mën nga am loo ko dolli kon tey su dajalee ñëpp tey jii mbër yëpp ñu ñëw taxaw ku ci ñu wax li ñuy war a wax ku ci am sa xalaat bu rafet wax après moom mu jël kàddu gi wax ak presse bi boobaa amaana tey jii loolu jàpp man gëm naa loolu sooy su ko defoon tey jii nii wallaahi lu bëree bëree bëri dina saafara ko te man message boobu kese laa koy lancé ah mënee wootee mu wootee. non man du ma classe kenn man classuma benn VIP classuma kenn tey jii ku fi ñun ñëpp ay nit lañ doofu ñu junne jàpp ñu xam nañ lu baax xam nañ lu bon comprendre nga képp kuy doxal làmb wala ngay wax loo xamante ni neex naa dégg dañ ciy ànd ak yow boo fi waxee yenn wax yoo xamante ni tamit déggul tamit dañuy génn taxaw wax ko xam nga loolu kese la parce que tamit mbëri mag yi bokku ak ñoom écrit bokkuñu ak ñoom dara yaa ngi dégg duñ si fëgg buntu kër kenn tamit mu ñu may cent franc kon exemple ko def léegi waaw mais mais loolu mais bi les lutteurs en activité lañ ci def. dafa waaw ah, man changement boobu koy doog a yëg waaw xam nga maa moo tax may wax nii sax looloo tax ma ciy wax parce que tey jii nii boo xoolee. boo gis gënee gis tamit moo woote conférence de presse di kaas yu mel noonu moo tax xam nga la ma la parce que tey jii nii ñun ñi ñëpp ay leader en activité lañ parce que toll nañ foo xamante ne tey même bu ñaari nit wala benn nit sax buñ leen nee def leen lii dañ koy def buñ leen nee aw leen fii dañ koy aw comprendre nga rawatina nag mu doon mbooloo boo xamante ne tey jii nii luñ fuñ leen awloo ñu aw fa leen def loolu koy def kon tey jii am na loo xamante ne tey jii nii ñun am na loo xamante ne tey jii nii normal c'est normal même bu ñu si boolewul tam ñun ñu boole suñu bopp noonu la demee nag waaw. c'est que li ma li ma li lay laaj. waaw xam nga dégg naa ci sa biir ay wax nga développé ci lépp lu jëm ci wàllum. Hmm. Gris Bordeaux ak yu jëm si wàllum hmm. état nangam sax. Hmm. loolu am na solo mais démb Balla Diouf dama ko dégg micro mu am benn wax mu wax. Ah. maanaam yéen mbër yi. ci làmb sax lay wax en général. boo ci dégg mu wax rek intérêt dañ ko mën menacé maanaam ay la moom maanaam tey ma Moteur bu génne wax parce que waroon na bëre. aj nañ combat ndax lan coronavirus keneen nanu keneen nan mais suñu loolu doo dégg Double Moteur génn fenn di défendre lu bokk si làmb wala buy wax écrém lay wax rëbës lay wax tout court est-ce que du yéen dangeen a bàyyi ba jaan ji dem ngeen topp si wati bi maanaam la ngeen war a taxawee du ngeen tax ko taxawee à l'heure da di bàyyi ba seen ay intérêt maanaam ñu menacé ko ngeen doog a génn maanaam kon mbir yi day mel ni ku nekk rek sa intérêt ndax yaa ngi def sa conférence de presse Zarko seetaan nañ ko mu wax keneen wax na keneen wax na est-ce que tamit nangu ngeen am kilif de tënku ci ci ci ci kuréel parce que tamit lu waay mën a wax moom am ngeen association mm-hmm. moo xam adhéré wala ñàkk adhéré mm-hmm. mais bu kii taalee fële taalam ke la jafal fee kee jafal fee est-ce que loolu dina tax njëriñ feeñ waaw li nga wax dëgg la mais tamit loolu li ñu ciy sànni kaddu du bëri parce que boo xoolee lamb ñaari année yi la commencé am ay jafe-jafe kon tey jii bu fekkente ni jàmm mu ngi am. làmb yàgg ñun boog depuis 2012 ba tey. waaw ñun boobu ñu ngi doog a ay jafe-jafe ci làmb wala doon comprendre mais par exemple benn affaire dafa am li li li li Balla Diouf wax li Balla Diouf wax noonu. waaw lool loolu côté boobu dañ koy dëggal comprendre parce tamit am na loo xamante ni mënoo xaar ba mu jàll ka ci soog a topp di wax wala dara mais tey jii dafa am ñoo xamante ni tey jii nii pour man loolu noonu ñoom seen devoir la mooy CNG bi am na si lu si bëree bëree bëri seen part de responsabilité la mbëri soo a ñëw est-ce que comprendre parce que tey jii nii mbëri yàgg nañoo am lu leen métti ñuy kaas mais du sori du dem fenn boo xa amaana boo gisee tey jii nii kaas bi nii wuteeg yeneen wax yu ñu doon waxee les points de

c'est normal waxuma la ñun mbëri kese mais képp ku nekk képp kuy axlu làmb wala kuy bëgg a làmb tey yéen la nga ci war a kaas da nga ci war a wax noonu la demee moo tax ñu siy génne nii di ci wax parce que du yoon am na loo xamante ni tey daaw bi mu amee mbëri ñoo mujjee génn wax li muy métti métti mbëri ñoo mujjee génn ñoo mujjee wax parce que boobu yëpp la tënk mais bii nii dañoo gis ni tey jii nii dafa am loo xamante ni tey jii nii dafa dafa am dafa am nu ñu ko doxalee noo xamante ni maanaam day mel ni jour genre kumba am ndey kumba amul ndey voilà dafa am gën a lante parce que mënu ma conserver tey jii nii activité sportive yi tey jii nii lamb lañ ci lamb lañ ci njëkk a lañ ci njëkk a arrêté amaana foofu bu ñu ko arrêté xëy na yàggul lamb lañ njëkk a arrêté yi ñu ngi ñu ngi am gars ñu ngi tëgg ay soirée artistes yi ñu ngi tëgg ay soirée soirée yaa ngi fees xam nga ma la kon tey jii nii am na loo xamante ne tey jii nii suñ ko bëggee boole ko tamit ci làmb tey jii nii normal tamit ñu génn kaas yee solo ah. looy li ñuy li ñuy mooy mooy état bi lañuy lañuy lañuy la ñuy waxal rek. waaye Alioune Sarr est-ce que du leen ree. ah parce que ah. daan taxaw ne Alioune Sarr na dem na ah, ko de. rëccu ngeen non wax moom instant yii rëccu nañ ko moom. parce que tamit waaw parce que xamul ndax xamul ndax. parce que tey jii nii deux ans yi nga xamante ni tey jii moom la fi Bira Sène nekk gisuñu benn changement. Bira am na ci wàll nag. waaw xam nga amu ci mais même. mais xam nga moom mooy ndawal état tey jii nii bu dee ci cadre làmb ci moom lañ mën a wax ci moom lañ mën a wax rek ci bira lañ mën a wax parce que tey jii tamit lu muy métti métti métti ci bi moo dafa amul njëriñ bokk maanaam changement bi benn changement amul dara amul benn njëriñ loolu moo tax ñu ñu bàyyoon moo gën parce que nit boo fa changé dara teg fa dara pour changement moo tax mais bu fekkente ni da nga fa teg gisoo fa changement amaana sax dafa gën a dellu ginnaaw gën a yées tey jii tamit kon nga bàyyi fa kële moo gën pour man loolu moo tax ñuy wax beneen message bi ñuy lancé tey jii nii état bi lañ koy lancé mooy ngir yàlla war a suri ñoo xam ne jeunes yi sonn nañu ñu woo promoteurs yi jàppale leen parce que promoteurs yi dañoo sonn ñu woo promoteurs yi dédommagé leen jàppale leen xool lu ñu leen di jàppalee jox leen xaalis ñu xool lu ñuy jàppalee mbër yi parce que instant yi mbër yi dañoo sonn amee nañu ay bor yoratuñu dara parce que boo xoolee tey jii nii coono yi ñu daj ci combat yi nii mosuñu ko daj ci benn combat perte nañ ci ay xaalis amaana tey sax li ñu xaw a dimbali sax mooy yenn gars yi nga xamante ne ñoom lañ ñàkkal parce que tey dama li may million amuñu ku ñuy may ay ay ay wala trois millions ñun lépp loo xamante ne tey jii nii ñun ñoo ko am wala ñun ñoo koy fayet supporters yi la parce que supporters seen weccet ñooy dajale seen ay 1000 francs xam nga te loolu nekk na loo xamante ni yombul nekk parce que gars tey ñu nii parce que boo xoolee tey ñu nii préparation combat bi retour bi nii combat bi passé gars yi daj nañ si ay coono génne seen ay xaalis bu weex tàll xam nga gars yi nga chaque jour wallahi azim ay asiko lu ne nekk lañ daaj pour préparer combat bi dajale seen ay xaalis takk ay drapeau drapeau yi démb lañ ko tekki disons yii dañ ko arrêté sax dañ ko commencé woon defar bi ñu arrêté lamb yi si lañ ko arrêté cadre yi ngay gis nii drapeau yi takkoon nañ ko démb lañ ko tekki xam nga barke alxuraan keroog bi ñuy bi ñuy bi bi ñuy ñëw rek gars yi def nañ boo xam ne ay kaar lañ jël ak lu nekk xam nga gars yi sonn si trop booy dajale seen ay xaalis dajale seen ay weccet booy chaque jour ko jëfee fii la ñuy fanaan di ci daj ay coono durant un mois avant combat ba léegi di ci fanaan di daj ay coono di def lu nekk xam nga di sonn ci combat bi ñi nga xam ne tamit aussi tamit suñu ay morom lañ ku ci mel ni ay toororo yenn gars yi dañuy seen xaalis bi wax daal di ko ci def di ci sonn parce que boo xoolee keroog combat bi moo ko jiitee yenn gars yi bëri fii nii xam nga di yëg seen xaalis di def ñu ñëw fii nii tamit chaque jour que jëfee laala dañuy dajale bu doon benn cinq mille sax laala jour jour bi buñ jugee entraînement lu mu néew néew bu dee benn junni dinañ ñu ko jox pour ñu dépenser pour bañ rek ñu change suñu suñu alimentation nga xamante ne tey ca loolu ñuy jox ñoom wallahi azim ñu ko ñun mais dañ koy def parce que tey jii xam ñu mbër dafa metti voilà kon tey jii loolu noonu tamit message bu ñu lancé boo xamante ni bëgg nañ tamit état bi jàppale ñu lu mu ñu a gën a gaawee tey jii nii mu jàppale ñu joxaat woo promoteur yi jox leen parce que tey jii promoteur yi bu ñu leen joxlu xaalis tey jii nii pour ñu yokkal mbëri day metti sama combat bi léegi mu ñëw di li nga mën a envoyé kayitam non xaaral sax maam dama defal yow comme ça man léegi mën a continuer si dans sama marché waaw maa ngi xaar ok am na lu ma la envoyé léegi léegi ci sa compte Orange Money international ak Tap Tap Send waaw li neexul képp ku may envoyé ci xaalis ku nekk ci diaspora bi nang ma ko envoyé ci Tap Tap Send ma jot ko léegi doo rang fii ma toog laa toog mu ñëw waaye li neexu tap tap seen lii neexu tap tap seen lii neexu tap tap. man big naa.